waaw auzu ah, billahi mina sheytaani rajim waaw ah, dañuy wax rek alhamdulilahi rabbil alamin parce que wax ji sax bu bëree ñu tuur xewal parce que vraiment dañuy sant yàlla bu baax a baax ndax lii wallaay yomb ñu toog six heures du matin wala quatre heures ba heure bii ñu ngi ci deux cent et dañuy sant yàlla bu baax di julli ci yonentam bi ngëm gën rek mu am solo ngëm-ngëm rek moo am solo yàlla seede na ko parce que waxuma la Pikine gi moo ñu wuyu si waaye dama naan région de Dakar yëpp ñoo ñu wuyu si ndax ku ne jóge na fu ne ci gox bu ne ñëw dañuy remercier Aziat remercier le président Mouhamadou Bassirou Niang di ko ñaanal yàlla na kóllëre gi am si soxnaam soosu na ko yàlla fay journée bi muy xolam dañuy ñaan yàlla deuxième édition bi mu dem ba di ko defee stade Amadou Barry yàlla mun na ko yàlla ko yàlla def ci kàttanam ñu ngi remercier Liska ñooñu moom dañ leen di bàyyi yàlla parce que lu ñuy njaaga nag ñoom ñooy njaag parce que buñ ñu laajoon xaalis bu bëri amaana dinañ ko bëgg mais du ant parce que suñu doole eggagul foofu mais vraiment lii yomb sànq ba tey maladie ñu ngi leen di faj ñu ngi def ay opération ci col yi te loolu ku koy xam na ne ay huit cent mille moo la koy may pour nga def ko col poste rek pour ñu defal la ko soixante mille la ko kase di defee ñu jël seen matériel depuis démb nelawuñu sonn lool pour faj jigéen ñi yal na leen yàlla leen fay ñu dégg leen à travers le monde partenaires yu gën a mag ci monde bi ñëw di leen soutenir parce que wax dëgg yàlla dañuy def ci cancer ñëpp gis nañ ñu dimbali famille yu bëri ne dimbali jigéen dimbali nga famille waaw ah, ah, la présidente Tata Fatou ñu ngi koy gërëm ak stafam Mansour moom mention spéciale à lui madame Wade madame ñoo ñu lañ xam moo tax ñu lim leen donc ku lim jim mais ñi ngi leen di sant leen gërëm amul lu ñuy bëgg foofu Liska mu jafe ñu vraiment waa ñu baax lañ ñu serviable lañ vraiment yàlla na leen yàlla fay seen xol. amiin kay léegi ñëwee ci loolu. ñu sant jigéen ñëpp fi teewoon sant Modou Mati ndax c'est lui le secrétaire général de l'association avant muy nekk maire waaw apporté na fi dara vraiment suñu caravane bi moo ko defar waaw ci moyen boppam te maire bi boobu ñëwagul ñu ngi koy sant ñu ngi baalu du ko gërëm ñu ba yëg bu ñu paree ci Modou ñu ñëw ci monsieur le maire ak délégation bi ak madame le maire Tande Niang délégation bi mu fi yebal dëgg yàlla une forte délégation ku ne bàjjenu gox xam ne ñoo yor gox bi ndax ñoom jëdd caare kaw dafa yaatu te ku ne bàjj gox bu ne bàjjen jóge na fa ñëw donc go jëdd caare kaw yëpp lañ ñu invité indi seen enveloppe wax ci wax ju rafet accompagnement accompagner ñu te dañuy ñaan on lance un appel à monsieur le maire Mamadou Gueye ñun li ñuy def nii yàlla moo ñuy téyel lii rek waaye suñu doole bareegul suñu siège bi mi ngi fii ci marché pënd ñu ngi ko bëgg a defar bu fee def centre te boo defarul foofu ba mu moderne nit ñi duñu mën a ñëw di la fu tegal benn appareil boo xam ne di nga mën a ñëw di seet ñu former benn sage femme mu nekk foofu permanemment di di di di jigéen ñi foofu. te loolu lañ bëgg vraiment mu jàppaleen ñu tuuti rek te yàlla tax ndax li ñuy def moom lañ koy defar ndax ci kiyam la bokk jida caaray kaw. te ku ne xam ne Massa Pënd këram la donc ñu wax ko mu jàpp ci bu baax a baax ndax association bi moom lañ ko defal ndax ay jigéenam rek ñoo fi fees fii tey del ñu faj leen te fay ñu dara may leen ay bon de mammographie dafa leen kospos opéré leen ñam ñu bëri am nañ fii ay début ak polype du kol te dañ leen a dindi fi ñu tëdd donc loolu sant yàlla la ndax loolu ay huit cent mille ngay fay donc sant nañ ñëpp gërëb nañ ñëpp ñi ci jàpp ñëpp sant nañ leen waaw waaw ñu ngi gërëm ñëpp ñu jàpp ci bis bi hmm. muy Liska en premier lieu hmm. ñu ngi gërëm tamit suñu càmmiñ hmm. El Hadj Fall Sun of Time mouvement boobu nga xam ne ñu ngi fii ci Djeddah Thiaroye ko di def social vraiment amuñu seen fay joxe nañ seen somme ca bañ ko war a joxee macha allah jàppale nañ financièrement dañuy woo dañuy laaj fu affaire bi toll ba tey ñu ngi ñu accompagner ñëw ak seen délégation donc xam nañ ni ñoom ñun yëg nañ ñu safoon nañ ñu faale ñu sant nañ leen gërëm nañ leen vraiment kontaan nañ ci ñoom waa Sun of Time ah par le biais du président El Hadj Fall ak euh, Mohamed Ngom ñoo fi représenté woon mouvement bi. Hmm. vraiment kontaan nañ ci ñoom waaw. ñu leen wax rek ñu gën cee jàpp rek ndax seen gox la. Hmm. seen gox la Djiddah Thiaroye Kao ñoom it seen gox la. Hmm. ndax koñ boobu mu ñu dëkk juddoo fa yaroo fa fa la siège ba nekk ñu jàpp ci bu baax. ok ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax. dernier kàddu yi mooy ñu ngi gërëm. Uh-huh. suñu représentant li ñuy wax man li may wax chaque jour. Uh-huh. mooy maire bi. Uh-huh. la monsieur le maire Modou Gueye mooy. mooy suñu Macky Sall fii ci Jidda Thiaroye Kaw. ndax moom moo ci moo fi représenté. son excellence. donc ñun lu ñu def lu dul gërëm ko. sant ko parce que bërki démb rek man fii ak ñoom Tande Niang ñoo nekkoon fii. man ku ma xam-xam ni ci social. fii laa nekkoon di joxe tàngal lu ne ma dugg si. parce que dafa organiser lu am solo. muy xaraf. Mhm. xaraf dafa sacré mhm. fii mille et quelque keroog sama yaram da daw ba may tëye xale mhm. te lu ko waral bu ko neexoon mu yemale ko si jabootam te ku ne am na loo xarafalee say doom mais loolu dafa neex dañ koy ñaanal yàlla gay lu mu mun ren bu déwénee yàlla na mën lu ko parce que moom defu dong pour moom dong mi ngi ci social bi mi ngi ci éco éducation bi vacances yi mi ngi ci diine ji mi ngi fépp macha allah macha allah donc dañ koy ñaanal yàlla rek lu mu yóotu yàlla na ko jot ci barke alxuraan parce que xale la mais il est ambitieux waaw il est trop ambitieux yàlla yokku ay gradam dañ koy dégg ci ay ministre pourquoi pas président yàlla mun na ko yàlla na ko yàlla defal nit ku baax la waaw kotuwaayu ma ko mais nit ku baax la parce que gis naa li muy def ak jigéenam yi waaw bàjjanee nag man samay xarit lañ macha allah macha allah maag ñoom ñooy fan ndax xam naa maa ngi remercier ñëpp. ndeysaan xam naa ñëpp. waaw auzu billaahi mina seytaani rajim euh, ngi nuyu euh, mbooloo mi yëpp. Euh, man nag wax moom xam nga mu néew ma ko ndax. yàlla bindee noonu. Mhm. ndax lii am fii man yéene rek laa am. Mhm. waaw yéene laa am dans la mesure où feebar bi damaa dund ak moom. sama soxna am ko. ba yàlla def mu yóbbu ko. ma gis bett bi ma bett ak bett bi mu ko bett. ma jàpp ne. war naa mën a liggéey ci loolu. ginnaaw bi ko yàlla yóbboo. ba ni ma bette bette ko noonu. mu bañ a bette noonu ñeneen. loolu rek mooy bitu association bi. bi nga xamee ne nii maanaam loolu it sémb naa ko. awma kàttanu xañ na bu ma doxalee loolu waaye ay nit dañ maa fekk si di ma jàppale ci loolu mhm. bokk na ci ñi ma jàppale mhm. maire bu ji jidda caaray kaw mhm. ndax daaw laa njëkk a def journée bi ñu fekk ma fële jàpp ci ren mi ngi noonu c'est la deuxième fois maanaam maanaam ñu jàpp si yenn waaye surtout nag ñun ma indil délégation bu am solo bii ñu indi tey muy bàjjanal gox parce que man jidda caare kaw leen ma indil boo ne bàjjanu gox ñu dajale macha allah lu toll nii ci ay bàjjanu gox ça veut dire que ne jidda caare kaw yëpp dañ maa lan ñu lan yebal donc ma am ci contentement bu rëy rëy rëy rëy euh, comme ni ko Ndeye waxee Ndeye Niang mii euh, maanaam sama ànd ak Modou Gueye dafa yàgg parce que li ñuy wax 2016 bi ñuy dem ñoom ci législative yi ak seen logo ba logo bi sama atelier lañ ko créé donc kon muy lu yàgg te boobu ba léegi vraiment ñu ngi ànd waaw muy ànd bu rafet di ànd boo xam nii ci ànd dëgg lañ ànd beneen facette boo xam ne nii ñu ngi ko àndee mooy wane ne association bii ngeen di gis nii Modou Mati mooy secretaire général te ba muy nekk secrétaire général booba nekkagul maire lu jiitu maire bi la bi ñuy sos sos boo boo demee ci këyitu association bi fi ñu toll secretaire général Modou Mati Niang nga fay fekk donc kon mu ngi wane ne euh, lu lu ñun danoo danoo jaxasoo jaxasoo boo xam ne mënuñoo tàggoo waa donc kon Modou Mati dama ne ko woon boo ñëwee fii yow ci euh, yére organisateurs yi ngay bokk parce que ñun ñun ñoo la njëkk fal avant maire bi di la fal loolu laa koy tool muy lii dëgg muy dëgg. donc kon ñu ngi ñu ngi ñu ngi remercier maire bi parce que mooy suñu partenaire naturel. Mm-hmm. ñun Jidda Caaroy kaw la suñu siège nekk. Mm-hmm. ki fi faatu mu nga xam ne moom moo yor maanaam moom lañ tuddee association Jidda caaree kaw gii la juddoo. Mm-hmm. waaw man mii Jidda Caaroy kaw laa juddoo. association bi siège am nekk Djiddah Thiaroye Kaw mhm. donc ñun mënuñu uti partenaire bu gën a yey commune Djiddah Thiaroye Kaw mhm. muy lu jaadu muy loo xam ne c'est naturel mhm. ñoom it loolu lañ xam ba téye ñu ak seen fukki loxo lépp lu ñuy def Djiddah Thiaroye Kaw mu ngi ci dugal loxoom vraiment amul dara lu association bi di yëngu te Djiddah Thiaroye Kaw dugal ci loxoom Modou Mati Niang su ma la waxoon tey li mu def ci ci bis bi da nga naan déedéet waaw en tant mi ngi ko en tant que membre boo xam ne du kenn du ko yëg. bëggul mhm. kenn yëg ko. Mhm. te chaque jour mi ngi ciy dugal loxoom. macha allah kon ànd bu rafet lan ànd ànd boo xam ne ñun ca euh, association Asiat muy euh, association Yatta Diop lutte contre le cancer mënuñu fay commune bi. Mhm. Euh, boo leen àggee ngeen waxal ma monsieur le maire ne sant naa ko gërëm naa ko. parce que lim ñuy jox xañ na dëgg la ci population bi lay lay la la leen koy delloo. waaye bu ko neexoon comme yeneen communes yi mu téye loxoom. te bu boobaa it duñ ko mënal dara. Mhm. waaye moom gis nañ li muy def ci ci ci santé gis nañ li muy def comme ni nga ko euh, limee madame jaalo ci ci ci domaine yëpp. donc ñu ngi koy remercier ñu ngi koy ñu koy am euh, suñu gërëm daal. Mhm. vraiment mënuñu sax wax fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu fu mu àgg. waaw ah, vraiment. ñu koy gërëm bu baax a baax a baax a baax. waaw lancer euh, lance lancer kàddu. Mhm. weesuwut comme ni la kii wax. yëf yi. li nga man rek mooy maanaam lii de man dal na ma bëgguma mu dal keneen mhm. gis naa li ci nekk ci coono mhm. gis naa li ci nekk ci ci ci ci ci alal mhm. gis naa li ci nekk ci mitit nga nekkat lii man wax dëgg yàlla yéenewuma ko mu tas keneen mu dal keneen te loolu mooy bitu sunu association donc may lancé wax ne ñun ñëpp mën na noo liggéey ci ci ci jàngoro ji parce que ku ci xam benn sax boo xam ne nii maanaam bu ko nit ko mhm. maanaam mu musal ko ci mhm. yow dèjà sa mission mooy loola nga àgg ko ko nga dendal mhm. donc ñun ñëpp mën na noo xeex jàngoro yi jàngoro yi ni koy xeexee mooy prévention prévention mooy ngay seet sa yaram avant jàngoro bi di la song waaw te jàngoro bi da naan du wér mais day wér ndax bu fekkee ne da nga koo gis teel koo gis luy wér la lu ñuy faj la waaw dañ koy dindi comme dég dég mhm. li bon mooy yow ngay yëg ay métit mhm. di ko wëyaale mhm. waaw naan mën naa xaar mën naa xaar mën naa xaar moo tax ñuy wax chaque jour parce que it dëgg la niñ koy seete xaw xaw na mammographie xaw na metti xaw na cher yenn saa yi tamit nga gis wax dëgg yàlla koo xam ne nii moom la mu jox ay doomam moo moom moom moom vraiment mooy problème am. Mhm. yëkkati trente cinq mille naan day defee mammographie day jafe. Mhm. waaye ñu profité ci journée yi mel nii. Mhm. nga xam ne nii mammographie yi c'est gratuite. xam lax euh, échographie c'est gratuite. boo defee nga ñu ñëw benn journée rek la yenn saa yi toogaay bi day metti parce que deux examens la. xam nga bu ñuy def deux examens à la fois métti na donc kon loolu mooy tax maanaam ñu bëgg maanaam ñu ñëw profité ci journée yi euh, bu ko defee gis ci seen bopp waaw donc loolu la daal feebar bi daal dañ koy sot sotoo feebar la bu ñuy sot vraiment mi ñaan ñëpp ñu ñu ñu participer ci incha allah macha allah waaw waaw xanaa di santaat yàlla bu baax di wax ne am nañu mbégte bu baax tey ji teew fii am nañ mbégte ndax tey jii dañu ñëw pour dimbali jigéen ñi mm-hmm. euh, suñu pàppa ji taxaw oh, muy Basiiru Ñang oh. moom pàppale ah, ci ñun ci mm-hmm. dem kon suñu tante la bu mm-hmm. taxawale association bu mel nii boole ñu ci ñun famille bi ni ñu ñëw leen comme ci yéen ci ngeen nekk ñëw leen ñu sensibiliser ñëw leen ñu jàppale ba man li ma dal bañ tee dal benn góor kon loolu dañ ciy sant yàlla ndax mënoon na koo dal mu noppee ak moom toog ak moom ca këram bañ cee jéem yenn jéego waaye da koo dal ba pare mu muy def ay jéego ngir mu bañatee dal keneen kon kooku dañ koy dañ koy ñaanal yàlla mhm. yàlla dëgëral gim ko dëgëral ba tax mu mën a def loolu mhm. mu gën koo yokk mhm. ba tey jii fépp fu association bi war a dem association ba dem fa ndax su fa demee ngëneelu jigéen ñi la ngëneelu askan wi la waaye ngëneelu Djiddah Thiaroye Kaw la ndax tey jii ci Djiddah Thiaroye Kaw la ñu nekk te su dee jigéen ñëpp ñu ngi leen di dépister ba ñu xam lii nekk ci seen yaram mën koo teel a faju mën a wér mhm. su boobaa dañuy am euh, population boo xam ne population bu wér lay doon mhm. loolu moo tax ñuy sant yàlla loolu mooy tax ñu am mbégte mhm. ndax boo gisee nit ñi ni fi teewee rek nga xam ne nit ñi génn nañu wuy si nañu xam nañu li ñu war a def xam nañ tamit liñ fi liñ fiy wut si waaw xam nga communication bi moom tey jii moom bu taxawee moom dafa doy sëkk communication. macha parce que sama soxna maa nekkoon ak moom li ko yóbbu. Mhm. loolu dafa doy sëkk communication. kon donc moom bu taxawee rek. Mhm. lépp wax la. mu boole ci nag ak dépensé ay moyam mhm. def caravane am wër ji de caaroy kaw mhm. wax ba ñëpp xam ne tey jii fii dañ fii dañ fii mhm. dépisté te waa yi lay àndal pour dépisté ko mënoon na koo def ci buntu place am mënoon na koo def tamit buntu këram mais su ko indee fii c'est parce que dafa jàpp ne fii yell na fi pour ñu def ko fi loolu tax mu indi ko fii war koo bokk ak ñëpp bokkook askan wi waaye bokkoo tamit ak corps médical bi kon moom génnewul kenn boddiwul kenn bàyyiwul kenn ñëpp la ci boole képp ku fi ñëw rek am nga ci wàll boo xamante ne bii war nga ko joué muy bàjjanu gox yi muy relais yi muy population yi muy ñi nga xam ne tamit ñu ngi ci biir kër yi nekk ay jigéen mhm. surtout ñooñu ndax ñooñu la gën a concerné mhm. kon dañuy wax ni jigéen ñi nañuy génn di dem di xooli seen i yaram bu leen dara méttiwul tamit dañuy dem xooli seen yaram parce que mhm. loolu mooy tax ñu teel ceeb génn teel mën a wér ndax feebar bi dalee mën na nekk ci yow ay addi nelaw duñ koy waxee feebar bu sournoise la mm. day def balaa nga koy xam rek yàq mm. na loo xamante ni bi yow xamoo ko mm-hmm. kon donc dañuy teel a dem di dépister wu mën a faju mën a wér mm-hmm. ndax suñu fajoo wér te mm-hmm. dépistage bi rek moo ñu si mën a génne waaw xanaa xam nga nag mënumaa taxaw ba yeggal te du ma wax ci monsieur le maire waaye lii ma yor nii ay kaala yoo xamante ni bii kaa yi ñu war a traité la fii macha allah kon donc dañuy wax ni feebar bi existé na. Mhm. mi ngi fi. Mhm. na nit ñi faju mhm. mais monsieur le maire tamit dañ koy ñaanal yàlla ne ko. Fatim waxee rek mi ngi mi ngi ñuy jàppale mi ngi ñuy gunge. Euh, mënoon na ni def naa ñi nga xamante ni bii ñoo doon poste de santé yi. ñoo bokk ci man. mais association bu ko sollicité. koo xamante ni bii ci population nga bokk te moom ak bas mi nag danoo yàgg. ndax ba ñuy def suñu logo bu njëkk. ñu nag moom la woon ci biir atelier lañ ko defee. kon loolu am na lu muy wax. loolu histoire la mhm. tey jii su ñëwee la ko lu yell la su ñëwee mhm. fekk si ko ci bisam lu war a nekk la mhm. kon donc ñun dañ koy ñaanal yàlla lépp lu mu mën rek mu yokk koo man te yàlla may ko tamit xel ak ubbeeku woo xamante ne bii mm-hmm. képp ku sumb rek mu xam ne moom ngay defal ndax lii mm-hmm. basi def moom la koy defal mm-hmm. moom la waroon ndax population la kon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla lépp loo xamante ne bii ñu ngi koy def ci gox bi rek mu war cee mën a tàbbal ñaqam tàbbal ci dooleem tàbbal ci am xelab xelam accompagner ba lépp mën a ñoŋ ci jaam ak salaam macha allah ñu ngi ñaanal ñëpp ku mu dal yàlla na nga wér ku mu dalagul yàlla bu mu la dal amiin amiin feebar bu bu dara musu la waaw asalaamaaleykum waa Djidah Thiaroye Kaw asalaamaaleykum waa pédiatrie maa ngi nuyu bàjjen yi ma fi fekk di jiital ci nuyu bi madame la maire Ndeye Niang tey jii moom bu fi taxawee day mel ni Modou Gueye moo fi taxaw mhm. ñu koy nuyu di ko jox wàccuwaayam bi wax ne may présenté wu nata jàlloo Diallo mhm. madame Sagna présidente commission santé mhm. bu Djidah Thiaroye Kaw waa monsieur le maire Modou Gueye boo xoolee ne moom wér yore yi wér-gu-yaram yaay at doom daf ko soxal. Mhm. macha allah boobu ba léegi mu ngi ci mën naa ne tey mooy suñu quatrième édition bi ñu fi ñëwee tey ci octobre ba léegi. Mhm. njëkkee woon nañ ko ci dispensaire bi nekk sant yàlla. Mhm. mu def enveloppe jox leen pour appuyer leen ci lu mel nii. mu defaat ko ci dispensaire bi nekk euh, gannaaw mairie ba bi ñuy wax déggoo. mu ñëwoon pédiatrie fii. appuyé leen tamit lu mel nii tey tamit mu dellu siwaat fii ndax moom loolu moo ko soxal mhm. mooy netteelu yaay ak doom mhm. ndax ku wax wér-gu-yaram wax yaay ak doom defe naa faj nga lépp mhm. ñu ñëw tey nag ci monsieur monsieur Bass ci association bi ñu ñëw tey pour di ko appuyer ci octobre rose am mu def tey. macha allah macha allah jigéen ñëpp wuy si ko. Mhm. ndax dañ ne fagaru. Mhm. moo gën faju mhm. moo tax monsieur le maire bu gisee koo xam ne day sensibiliser. di dépister. ci affaire cancer bi nga xam ne moom moo lëmbee réew mi. rëmbee àdduna mhm. da ci li mu ci mën da ko ciy def mhm. moo tax mu indi woon mhm. asaka yéeneem te ak kóllëre bi nag du dañ mu jàppanteeg monsieur Bass mi te xam ne bu ko fi yàlla bàyyi at mu nekk fekk mu ngi koy def ñu ngi ci gannaawam maire bi mu dëla maire moo liggéey mu ngi ci gannaawam ndax moom loolu moo ko ñor muy wér-gu-yaram yaay ak doom moo liggéey sante daf koo ñor bi mu liggéey ci kamin commune ba commune ba léegi macha allah li mu mën ci sante mu ngi koy def ndax lu yàggul dara rek la fi xarafal ay xale defe fii lañ ko defoon ci pédiatrie bi mhm. def ko déggoo def ko mhm. jidda mu defoon mille cent enfants yoo xam ne mhm. moom moo leen xarafal jox leen garab faj leen ba mu wér may leen ay yére am suivi boo xam ne nag macha allah xale yëpp gisaguñ benn xale boo xam ne déclaré nañ am nañu problème war naang ndax man ñun ñoo ko yore woon kon loolu di askan bi di ko ci sant di ko ci gërëm bi mu njëkk bi mu ñëwee salaamaaleykum jërë caakum li mu lépp xalaat mooy ambulance macha allah te xam ne ambulance ñun dañ ko doon jooy boobu ba léegi mhm. ndax ñun ay relais lañu en tant que commission bi ñu yor mhm. ñun si centre lañu mës a dox mhm. bàjjen yaa ngi nii toujours dañu ko doon jooy monsieur le maire ne leen ambulance baa ngi nii ma teg ko ci disposition wu poste santé yi malade bu ñu war a évacuer dañ ko ci jabal évacuer ko mu tegaat ci corbillard ndax ko wax dund wax dee kon nag monsieur le maire dañ ko naan jaajëf jaajëfati te di ko ñaanal yàlla li mu mën ren bu déwénee yàlla mën na ko xanaa di ko encouragé te di ñaanal ki nga xam ne moo fi jóge mhm. yàlla na ko yàlla yërëm te mhm. xaare ko ci àjjana fi daw si mhm. te xam ne lii moom na ñaan yàlla genre yu mel ne moo Gueye yi nga xam ne bëri ci département de Pikine pour jàppale ñi nga xam ne ñoom ñooy sensibiliser pour affaire cancer ndax cancer bi mu ngi def ravage tout dernièrement rek am na koo xam ne borom télé la jabaram looloo ko yóbbu ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci kër yi ñu ngi leen loolu mu ngi leen di yóbbu kon nag ñuy ñaan yàlla jigéen ñi nañuy génn di mhm. dépisté wu mhm. di dem ci cause yi di déglu bàjjenu gox yi ak relais yi mhm. parce que bu li ñu naan fagaru moo gën faju ndax tey fajuñu tey fajuñu dañuy sensibiliser waxtaan ak askan bi xool jàngoro bi fan la toll ku ko am ñu référé la yóbbu la nga faju kon nag bu ñu ñëwee fii bu fekkee commencé na bu ñu la yóbboo yàlla mën na laa dimbali mm-hmm. ba li yóbbu ñeneen ñi du leen yóbbu kon nag moom mi nga xam ne lii mu def mm-hmm. dañ ko ciy ñaanal yàlla may ko doole ak kattan ba mu tas si jidda caarañ ko yëpp mu bañ a des ci pédiatrie mm-hmm. nga xam ne jidday fépp lay nekk poste yëpp la koy def chaque année mu koy def ndax lii ku koy def rek jaamu yàlla la jaamu yàlla mën weesu fii xanaa di santaat rek di gërëm di ñaanal ki nga xam ne moo ñu fi tax toog muy monsieur le maire Modou Gueye ñun de xam nga li ñuy rëccu jidda moo yéex koo am ndax koo xam ne man sànq ba léegi santé laay wax. waaw bu ma laalee ci ci éducation. nga ne moo ci mën. boo laalee ci social. nga ne moo ci mën. at ak genn wàll yi mu fi def. am na ñu fi am ñoo xam ne def nañ fi sept ans defuñu ko. kon nag nañ ko ñaanal. ndaw la nañ ko ñaanal. yàlla li mu bëgg ci Djiddah Thiaroye kow yàlla mottali ko parce que damay dégg toujours muy wax benn baat danaan. dañ maa yónni waaye dañ maa yàqamti mhm. parce que yaakaar la jëda caarañ ko am ci moom mhm. yaakaar bi jëda caarañ am ci moom yàlla bu yàlla tas yaakaar bi mhm. te incha allah ni ma ko gisee ndax yaru na tabe na baax na te bëgg na ko xam bëgg na département de kon nag yàlla na ko yàlla jàppale ba ñuy wax leneen lu dul maire ñuy wax leneen ak loo xam ne ñëpp Sénégal yëpp dinañ ci xaj te incha yàlla dina ko def ndax yàlla xol lay fay jërëjëf ñun dañoo am programme boo xam ne sant la. waaw di caare sama xottu bu tàmbali. wallaahi yaa ngi dégg ñu am ñaareel yu ndaw mooy di 15 ans. waaw jëm suuf war nañoo fay ñu magum cinquante ans jëm kaw war ko fay. wallaahi waaye nag cinquante ans ba quinze ans quinze ans ba cinquante ans. ñooñu ñoo mën a supporter lépp. parce que jeune boobu moo ñu dugg. jeune boobu mooy fayal yaay mooy fayal doomam. mais moom ak boppam. waaw nee na couvrir nañ ko ba ci yaayam bu waroon fay fukk ñu ne ko yëg doo fay. Ah. doomam bu waroon fay fukk ñu ne ko doo fay waaye bu waroon fay fukk di nga fay fukk juróom. Ah, ah. merci état tamit ñooy complet. c'est ça yooyu. waaw waaw c'est important jërëjëf <laughs> jërëjëf ci xalaat yooyu. <laughs> waaw ñu la ginnaaw bi ñu sant yàlla jël si yent bi sant suñu ñaar waajur amuñu leen lu ñu wax ndax suñu kilifa yi wax nañ lépp ñun ay ndaw leen dañuy topp seen ginnaaw rek ndax lu ñu wax rek si la ñuy topp euh, jamono yi ñu toll nii comme paa bi wax rek xale yi euh, mag ñoo war a jiitu xale yi seen ginaaw mais léegi xale yi ñooy jiitu mag ñi topp seen ginnaaw euh, jamono ji foofu la tool ñuy sant alaaj di ko gërëm lu muy def yombut lépp looy def lu baax rek am na ñoo xam ne maanaam dañuy nekk si ginnaaw di di la gàllankoor gàllankoor boobu nag ñu ngi ñaan si kattan suñu borom. yàlla bu mu ant képp ku nga xam ne maanaam da lay yéene lu bon rek yàlla na yàlla teggi tànkam. ci loolu noonu. ñu koy sant di ko gërëm. si da barak nag. lépp lu leen waaye defal rek. defal nga yàlla suñu borom. muy mag muy ndaw ñëpp benn lañ. adduna bii nii lépp lu waaye def suñu borom nga ko defal. muy lu baax muy lu ñaaw. Alaaji Fall nag man moom dama mënul wax si ay ay affaires yi. caméra ak yooyu noonu. parce que xaw ma wax. ku xool daal xam ne daal sa xol daal tooy na daal. sama xol dafa tooy moom moom maa ngi koy baax suñu borom yàlla na ko yàlla defal. macha allah xam fu mu jëm yàlla na ko suñu borom. macha allah mi muy jàppale. dëgg la man maa ngi si ginnaawam tey maa yàlla defal jàmm. Mhm. yàlla na yàlla defal jàmm. macha allah kontaan li ma ci yëg kontaante laa ci yëg. Mhm. ndax Alaaji Fall dafa am lu ko njëkk a dimbali yàllaa ko njëkk a dimbali. Mhm. avant tout ay paaraamam yar ko. ndax adduna ni ko yàlla tënkee ma ngi ko tënkee ci alxuraan boo jàngee alxuraan nga xam li yàlla wax xam li yàlla tere yàlla dënk la wërsëg ni la da koy bokk ak jaam yi boo ko deful bon weddi nga waxul yàlla du dëgg dëgg moom nag boo gisee may ànd ak ñoom samay doom lañu waade xale bu baax la ndax xale boo xam ne dafa am moyen di ko def ci ñu feebar ñi te du lii rek la ko def yàgg naa faj yàgg naa dugg ci jàkk ku am soxla uh-huh. ku am dëj da ciy dugal loxoom kooku uh-huh. nag xale bu mel noonu uh-huh. daf dañ koy ñaanal yàlla yàlla suturaal ko yokk ay fanam ndax lu ma téeméeri xale bu nekkee nii ah, ñun mag ñi dañ leen war a jàppale ndax adduna léegi toll nañu foo xam ni adduna bi ci xale yi lañu ñu war xale yi ñoo xam jamono fu mu toll bon ñun lu ñu am mooy ñaanal leen yàlla yokk seen fan guddal ko ndax xale bu mel nii jafe na bu ko neexoon dem ci wàll bi di baatre mhm. te baatre boobu ngay baatre mhm. dalay wutal noonu am na koo dendal ma nga feebar ordonnance su dix mille te mënoon nga ko jox ci ki ngay dimbali moo la ëppale mhm. waale mi ngay baatre moo la ëppale te nit war nga liggéeyal sa adduna war nga liggéeyal sa laaxira dëgg la xale bii nag boo gisee ma sawar a ànd ak moom xale bu baax la ndax seen kër këru diine la ñoom ci diine rek yàlla nag mooy doxalee. Mhm. nga nekk ci kër. Mhm. nekk ci kër ba càgg sa mentalité di football di football ba càgg nga ni man ci société bi laa bokk. Mhm. war naa def loo xam ne war nañ mag ca xàmmee ci lu baax. yal na yàlla yokk fanam. yokk gëm loolu rek lañu koy ñaanal. xale bu baax la xale bu am diina la ndax masala boo ko wax. mu wax la lan la ci yàlla wax bon lu mu defati moo ko tey. macha fu muy teg tànkam bu dee temps yi dëkk bi jaxasoo na. bu dëkk bi jaxasoo dama ne ko da ngay dal. da ndax léegi ñi fi nekk mag ñi fi nekk ak politiciens yi fi nekk ndax moom du politicien. dëgg la politiciens yi fi nekk. Mhm. dañuy def nii ginaar ni ngay mhm. jàppee picc. Mhm. nga cofal ko dugub. mu ñëw cof nga mbaal ko waade booy bi du genre boobu ndax ku regg dafa buggul diw. allahu akbar. kii ay millions jaaxalu ko ndax ku yor ay millions di ko maye kooku munoo koo këppatal. dëgg li ma koy wax daal fi mu teg tànkam bu mu ko teggi na ko teg. ñu ñaanal ko. ndax munoo xamale lépp man mii nekk mag sax munumaa xam lépp. macha yàlla rek moom mat. Uh-huh. waare du doomu aadama. Uh-huh. bu mat lépp uh-huh. amul. loolu moo ci am solo fi mu teg tànkam daal. bu ko teggiwul. toujours yàlla di la suturaal ndax yàlla munoo def lu baax mu fay lu bon bon tey def lu baax amatul njariñ. billaahi wallaahi. Hmm? dëgg la. def lu baax. loo ko ci def def toujours yàlla da lay yëkkati ca kaw. ndax moom. moom ci diina lay dox uh-huh. kii boo ko xoolee moom liggéeyu diina lay def bañ na ko ba sax bu lay jox du la ko jox devant le public daf la koy bokk ndax noonu la ko charia waxee dëgg la du dëgg dëgg moom nag man daal maa ngi koy ñaanal ndax bëréew ma li may ànd ak ay xale responsable géejawaay yi booy yu bëri uh-huh. waane moom daal wax dëgg yàlla doy na ma macha allah doy na ma kontaan